asalaamaaleykum mbokk internet Dakar Media TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm bisimila ci xibaar yi diggante Ousmane Sonko di njiitalu Pastef ak masseuse bi nag di aji Sarr ne woon fële ca Sweet Beauté mu ngi wéy nag di jur coow nag ci biir askan bi ginnaaw nag démb ab benn sortie bi njiital Pastef nag defoon daa di aji Adji Sarr ab benn dangin bu amee AVC. Adji Sarr nag daal na koy feelu démb nag ci ab benn live daal bu mu doon def ak kile di Adamo ak kalifon la dugg nag daal di tontu ay tontu yu frox sama dàngin jar na sama dàngin moo taxoon nga demoon en plein couvre fa jabar yëgul yaay yëgul doom yëgul nga ñëw nag fekk si ma du samay kàddu nag Adji Sarr nag moo ko xamle kile di Ousmane Sonko li woon wan ni la Adji Sarr wax kile di Ousmane Sonko ndax nag nee na rek bu ko Ousmane Sonko bàyyiwulee nag dina wax nag lu xewoon fële ca wokkaam bu mu ko tax wax bu mu ko waxloowaat waaye itamit Ousmane Sonko comme que moom day woote gatsa gatsa dina ko si nag fekki si nag ba mu mott sëkk doomu xaraam bi nga doon lii la ko aji Sarr wax boo génnatee wax rek man itamit dinaa génnaat wax dootuma la may benn virgule la lii le di ay kàddu nag yi aji saax nag yëkkati niki démb nag ci ab benn live naaw nag bi docteur Alfousseyni Gaye nag waxee gis na nag ay manni yu ci prélèvement yi mu jotoon a def nag ci examen gynécologique bi mu jotoon a def ci aji saax nag ñaari fan nag ci weeru février ci atum 2021 moom nag nee na presse sénégalaise bi nag dañoo modifié ay kàddoom yi mu yëkkati woon nag ci jour procès bi fële ca tribunalu bu ndakaaru li mel nag tax na nag taskatu xibaar nag yu bëri nag ni ki mel ni Ibrahima sa Faye nekk nag njiitalu sit boobule di Presse Afrique Mor Amar nekk journaliste ca l'enquête Eliman nekk correspondant nag dal nag ci kawam li ñu ko xam xamal nag mooy li mu wax rek ca tribunal lañu ko waxal Salif Sadio nag nekkoon nag chef rebelle nag te ñu xamal nag dafa génn àdduma lu yàggul dara nag xibaar boobule itamit wérul la bu ñu sukkandikoo nag ci mbokki Salif Sadio yi nag ñoom Salif Sadio mu ngi ci jàmm dara jotu ko ci fàttali nag groupe presse bi nag di Walfadjri nag moo biraloon xibaar bi ni mel laata nag ñuy présenter seeni excuse mbokk yi lii lañ leen indiloon ci xibaar yi ñu ngi leen di jox di daje ci yeneeni xibaar fii ci Dakar Media TV jaxa ngeen jëf